أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له أحبابي الأعزاء أيها المستمعون الأوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yéen soppe yi am di jàmm yi mbokk yu tedd yi auditeur auditrice yi Safina FM 98 point 2 ñuy leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo ci waxtu wile di leen ndokkeel yéen ñëpp di nuyu fadilatu cheikh Thierno Hamidou di ko ñaanal yàlla tawfiix sutura yàlla gën ko jàppale ci ay yéeneem naal yëpp mu sumb yàlla mottaleen ko ko yàlla mën na ko yàlla nu ko yàlla defal euh, di ko jaajëfal bu baax a baax ci jihaad bi muy def te mooy ubbi ëttu xam-xam ngir nit ñi di ci mën a xame seen diine li góor gi baaba woon di wax rek paa warga ndax nu ko yàlla fayal moom Thierno eh, jël nuyoo ba mu yéeg ba sa kaw ba ci fadilatu cheikh ayadahu llahu wa nasara wa ataala baqaahu fadilatu cheikh Thierno Bachir Tall di nuyu waa safina saadaat yi ñoom ñëpp zukuran wa inasa ñun na leen yàlla defal tawfiq suñu wayjur alxaaja Kumba Njaani Sarr ñu ngi koy nuyu bu baax diko ñaanal yalla tawfiix diko ñaanal yalla guddu fan yalla yagal ko ci kanamu njabot gi ñi njabot gi ñom ñëpp it yal yalla samaleen ar leen aar ci biir rew mi ñi ci bitim rew yal yalla samaleen sàmm leen del nuyoo di jox ya jigen mu joxal ñuko njabot gi ñom ñëpp yal yalla defal leen sutura su ko defé na jibi nuyu ñu wa hôpital abbas ndaw wa réanimation ñu leen di nuyu bu baaxa baax yal yalla defal leen tawfiq yal yalla samaleen leen fàttew ñu kenn si ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax macha allah su ko defee suñu bàjjen Ndeye Mati suñu papa El Hadj Abdoulaye Diop fii ci Scat Urbam ñu ngi koy nuyu di nuyu suñu yaay yi fi ne Adja a Diouf Adja Raki Adja Nogay Adja Mam Maguette Babacar leen di nuyu yéen ñëpp ñu leen di ziar soxna Fat Cissé macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax moom it di ko baax naka si gox bi. Eh, sëñ Yoro Ndiaye momit diko di nuyu fi ci Scat Urbam nuyu njabootam ñep kep ku nekk rek di deglu ñu ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal yalla tawfiq xam nañ ne yene a ngi ànd ak radio bi seen radio la yal na yàlla seen sutura yal na yàlla seen man-man ñep pa paawan jabotam ñom ñep ñu ngi tewlu jamana bu ne yal na yàlla leen rek ñu nekk ci Scat Urbam du ko wër dëkkandoo soxna raki Marie Fat Badji ñoom ñëpp macha allah yan yàlla sàmm leen di nuyu suñu wayjur ki nga xam ne El Hadj Aline Fall di nuyu njabootam moom it di ko ñaanal yàlla wérgu yaram di ko ñaanal sutura di ñaanal njaboot gi ñoom ñëpp macha allah rabatulaay an cité Fadia ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax waa kër Mbay Fall Aminata Ña waa Bambilor Amina Xumma ñoom ñëpp eh, di nuyu imam Ousmane Faye mu jotal ñu nuyo al aima wal ulama fële ci yof ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu imam Ibrahima Bass ñu leen di ziar ñom ñepp imam pap Fall Sam imam Mustapha Diouf ñom ñepp jël nuyo nak imam Ousmane mu jotal ñu ko ñoom ñepp rek soppe yi am di jàmm yi libaas Mor ngeen ziar ñu mbokk yépp fàttew ñu kenn ñoom goone ngom macha allah yéen yàlla jàppale leen ñoom Sali macha allah ñoom Makhtar njoon ñu ngi koy nuyu bu baax macha allah di mbokk mu baax di nuyu wayjur yi ñi nga xamante ne ñuy àndax ñun jamono bu ne eh, ndax ku nuyu suñu yaay rek nuyu suñuy bàyyi muy Pape Amadou Sow rajo yokkute macha allah ñu ngi koy ziar di ko jox wàcc waayam di nuyu secrétaire di nuyu maire bi njaboot bi ñoom ñëpp macha allah El Hadji Amadou Wan sa warga macha allah ni noonu noonu Alaaji Baye Ngala Dia macha allah njabootam ñoom ñëpp bàyyi ñu leen ba sëñ Kambare ñu leen di nuyu ñoom ñëpp jël nuyoo bi di ko jox am Marème mu jotal ñu ko njaboot gi fàttew ñu kenn incha allahu rabbi yal na yàlla sàmm leen aar leen. Eh, di nuyu it ñi nga xamante ne mooy El Hadji Diouf Seck macha allah dañu waa Liberté yi mu jotal ñu nuyoo ñoom ñëpp. ñu ngi leen di ziar di leen jaajëfal ñoom mag ñooñu ah ñu mel ni ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax yal na yàlla sàmma leen aar leen waa daayira daa ñoom Ndeye Bang ñoom Adja Mbaye ak Nanteng Coulibaly ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu yal na yàlla dolli seen sutura bu baax a baax oustaz Moussa Balde ñu ko fàtte benn yoon soppe it El Hadji Malick ndonga liggéey ngeen jotal ñu nuyoo soppe yëpp fu ngeen nekk rek di soppe ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay te di am mbégte lool ci ànd bi ngeen di ànd rajo bi kon mbokk yi yéen a ngi seen émission xam sa diine ci 98 point 2 ñu ngi àndaax seen mbokk sàmb ci si wàllu xarale bi bu ñu waxee sàmb rek xel daj na directrice ñu ma di ko nuyu di nuyu personnel bi yëpp ñu mu àndal macha allah euh, yal na yàlla defal leen tawfiix yal na yàlla sàmmaleen ñoom ñëpp jël euh, nuyoo bi di ko jox seen doyen ñoom ñëpp biran ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. mooy seen doyen waaye sàmm nag kilifaam a ngi fi muy ma kura te loolu sàmm defe naa nangu na ko nag yal na yàlla sàmm yal yàlla aar ñoom ñëbarit yal na yàlla dool seen sutura ndax ay ndaw la ñu neex a nekkal macha allah di leen ñaanal ñoom ñëpp góor ñeex jigéen ñi yàlla dafa leen ay promotion macha allah yu kawe lool yal yàlla sàmm leen aar leen ba ni ngeen di taxawoo rajo bi ngeen dégg seen tur ci fu sore sore ci si ndam ci mbégte yàlla mën na ko yal na leen ko yàlla defal di nuyu suñu mbokk mi fi jóge léegi El Hadj Omar Diagne macha allah ci waxtaan wu rafet wu sell wi tegu ci xam-xam yàlla jàppale ko yal yàlla dolli ko sutura kon nag euh, mbokk yi ñëwoon nañ ax yéen ci émission bi wees si lan mooy gëm yàlla muy al iman bu ñu waxee al iman di gëm yàlla moo jëkk ci doom aadama ndax ku amul ngëm rekk sa dara du mat te mbokk yi bu ñu waxee ngëm yàlla waxoon nañ la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ko yàlla joxe waaye jibril ñëw ñu koy tudde xadiisu jibril di ko wax yonente bi ngir mu xamal xeet wi lan mooy gëm yàlla jibril ñëw mel na mu mel ci sellaay ci taar ci civilisé waaye tamit ci wane bëggu xam-xam di ci am jàngat yu bari yuñ ci mën a jël ci euh, jataay boobale ci xadis boobale ci teg tegginaax ci yëpp kay jàngaleex ka muy jàngal foofu it ñu si profité ci école yi comme niñ koy waxee rek xadis boobu rek doy na waxtaan waaye incha allah danañ ci mas ñëw ci xam sa diine lan mooy importance waxtaan Eh, ci diine ci xam-xam ki koy sàkk wax ko mu koy ki koy jox ku si nan nga war a mel yooyu yëpp incha allah diine bàyyiwu ko yal nañ ci yàlla defal tawfiix eh, mu laaj ko lan mooy ngëm yàlla mu wax ko ngëm yàlla boobu moom lañ la waxtaanaloon bii paase yow mi àndoon ak ñun wala yow mi amoon ngant ba teewe ko woon ñu fàttalinte tuuti lan mooy ngëm yàlla bu ñu delloo ginnaaw muy résumé muy dars bi ñu génn bi paase dañu waxoon ne ngëm ci xol lay ne làmmiñ moo koy tudd ngëm yàlla ci xol lay ne waaye làmmiñ moo koy tudd wala na yàlla rek moom moo fi ne yooyu yëpp ci ngay wax naan ashhadu an laa ilaha illa allah kon bi ci jëkk ci ngëm yàlla mooy nga gëm ne yàlla am na al imaanu billah muy benn ponk ci ngëm yàlla da gëm na yàlla mu ngi fi amul ñaar amul ñett xam na lépp tëlewul dara luy dal nit moom yàlla du ko dal ku mat la soxlawul ci kenn lenn kooku nga gëm ko bu baax moom yàlla lépp lu xew nga xam ne yàlla la waaye tamit du ne da toog rek lu xew nga ne yàlla yàllaa ko bëgge noonu yàlla moo ko dogale noonu déedéet du demee noonu waaw waaye daal da xam ne yàlla mu ngi fi xam na limu doomu aadama yi xam na li mu gàncax gi bàyyi may laneen ax laneen dara ump ko te moom borom bi rek moom moo fi ne bi fi dara newul bu fi lépp jógee moo fi des bi fi dara laa ne moo fi ne kon kooku mooy suñu borom bi subhaanahu wa taala xam ne ku existe la waaye nan la mel moom borom beex yooyu mu ne tafakkaru fi xalqillaahi wala tafakkaru fi zaatihi fa tahliku loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te nga gëm yàlla ne binduñu la ci caaxaan wane ne nature bee la fi indi rek soo deewee jeex na suñu yaram yi daal li ñuy wax dékkee nangam déedéet dana la ko wan ci ngëm yàlla moo tax mu ne afa xasibtum annama xalaxnaakum abasa wa annakum ilayna la turjaun déedéet foog ñu dellu si borom bi subhanahu wa taala kon ngëm yàlla d'abord mooy nga xam ne yàlla mu ngi existé bonk bu ñaareel bi al imaanu bir rusuli yonent yépp nga gëm leen ko ci yàlla njëkk yónni maam aadama ba ci ki ci mujj muy sayidul wujudi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñépp da nga leen di gëm ñoom ñépp say yonente lañ ku si ne ah jamono ba nga tombeel kañ la boole la mu andi loola ngay attewoo kon nag ñun ummatu seydina muhammad ñii ñëw mujjug jamono li mu ñu indil mooy alquraanul karim ñu gëm loolu la yonente yépp ngay gëm doo bàyyi kenn xam ulul azmi ña sa gën ka sa gën yooyu yëpp nga xam ko bu baax loolu kon da leen di gëm ñoom yonente yooyu yàllaa leen yoon yónni ngir nit ñi bañ am lay ëllëg ci kanamu borom bi ne fàttalewulooñu loolu moo tax muy yónn yenente yi kon ñooñu da ngay gëm ne ci yàlla lañ bàyyeekoo euh, boo fi jógee nga gëm malaayika yi ñoom ñëpp nga xam ne ay malaayika lañ ay jëmma lañ waaye yàlla nga leen bind ci leer duñu lekk duñu naan duñu moy yàlla comme nañu koy waxee malaaka dafa defoon nii ne doomu aadama ndekete dina moy yàlla wàccee ko mu moy wala nangam donte le yàlla mën na ci joxe misaal ci ah nu mu ko indee waaye malaaka moom du luy moy yàlla malaaka du luy lekk malaaka du luy naan yàlla bindew leen ñu soxla loolu seen soxla yépp mooy jaamu yàlla kon malaayika yi nga gëm leen kon yàlla daf leen bind ci leer nga xamante ne ñoom nag ku si ne am na mission bu mu la jox boo xoolee jibril ah la ko yàlla jox mikail israfil azrail ñoo ñëpp ku si eh, nga nga nga nga xam ne am na lu ko yàlla jox am na du mu ko booleel ax ñeneen boo demee ñoom munkar nakir ñoom malik ñoom ridwaan malaaka yooyu yëpp ku si nga xam ne ñii ay ndaw la ñu yàlla yónni boo jógee ci malaaka yi nga gëm téere yi ne lépp lu yàlla wàccee ci téere lépp la ngay dégg ñu naan suxufi Idris suxufi Ibrahim suxufi Moussa ba jox muusa téere muy tawraat yooyu yépp nga gëm leen ba ci tawraat ba ci injiil ba ci zabuur ba ci alxuraan gi mujj wàcc nga gëm ne téere yooyu yëpp benn la kon nag doo ci wet di dara danga leen di gëm waaye nag doo leen jëfandikoo maanaa yow jullit bi doo fi gis alxuraan nga bëgg a attewoo dem ci la bible donte la sax da nga gisoon bible bu authentique bi nga moom nga gis yow amuloo sañ-sañu attewoo ci bible bu authentique boobule rawatina nag bible bu authentique moom gars yi fexe nañ ba def ci ay mbir pour rek nëbb melaw seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nëbb melaw lislaam kon moo tax bu authentique bi mu ngi fi waaye jafe na nga gis ko waaye même boobu boo ko gisoon yow en tant que jullit doo ci attewoo waaye da ngay gëm ne lii ci yàlla la bawoo waaye loolu ñu def ci alqur ci ci ci ci téere yooyu mënuñu ko def ci alquran inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun moom la yàlla wax yéen a ngi seen émission xam sa diine ci 98 point 2 fii ci skat irbam ñuy ñëw ci ponk ngëm yàlla di ko résumer pour dugg tey ci lan mooy l'islaam parce que dañu waxoon ne l'islaam imaan islaam exsan kon gëm téere yooyu yëpp nga gëm leen xam ne alxuraan moom nga war a attewoo lépp lu ci ñëw danga koy gëm ne yàlla lii la ci wàccee gëm alxuraan fonk ko lool moo tax it war na ci ñëpp ñu fonk nitu alxuraan waaw war na ci ñëpp ñu fonk nitu alquran moom la yonent bi doon wax ne nekkal kuy jàng alquran wala kuy jàngale alquran ku sopp alquran waaye bul nekk noonoo alquran wala nitu yi yàlla bi dafa wax ne xayrukum man taallama alqurana wa allama ki gën ci yéen mooy kiy jàng alquran bu pare di ko jàngale xam ko bu pare di ko xamale ko bu pare di ko xamale nga di ko jëf ña ngi koy xamal di ko jëf mu ne kooku moo gën ci yéen kon alxuraan mbokk yi dafa rëy lool alxuraan dafa rëy moo tax bu ñu gisee nitu alxuraan nañ ko fonk nañu ko ormal nañu ko jox cër ngir alxuraanul karim mbokk yi kon nag alxuraan nga gëm ko xam ne lii day kàddug yàlla la ba moo tax sax mu lay wax ne bu ngeen déggee ñu koy jàng fastamiu lahu wa ansitu na ngeen ko déglu na ngeen xerawlu na ngeen tekkaaral na ngeen ko bàyyi xel waaye it bul fi fekk mbooloo mi fu ñu ne nga dafa teg alxuraan bëgg leen ko imposer déedéet seetal rek fa nga xamante ne jaadoo na fa nga teg ko fa xam ne ñëpp dinañ ko mën a teewlu ndoo mbokk yi alxuraan mooy kàddu yàlla gi subhaanahu wa taala nga gëm téere yëpp waaye nga xam ne alxuraan kat mo mujje wàcc te moom laa yaatihi lbaatilu min bayni yadayhi wala min khalfi fan la jóge ngana tanzilum min hakimin hamid koku moy yàlla ci ban lang bi lisanin arabiyyin mubin ci kan la ko wàccee anzalahu ala sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga nangu loolu xam loolu le boo jógee foofu le nga gëm bespench moy yawmal qiyaama amna bisu din mom ngay jàng sa fatihe maliki yawmi din bés penc boobu moy ad din moy bés bañuy fayé kama tu din tu dan la nga lépp la won mom lan lay fay kon bés boobu la nga liggéeyoon moom lay fay fa jazaau l illa al ihsan lu rafet do fa indi won rek yàlla dolel la rafet kon deug bés boobu moy bes fay nga gëm bés boobu yawmal qiyaama xam na ni nga tàmbalee woon noonu nga fay delluwaate bul ne rek ah bu bu ma deewee ñu suul ma rek jeex na isaaman naxira la gaa yi doon wax déedéet waaye yàlla ne danaa leen dekkelaat bu ci ne na nga xamante ne noonu lay defee seen empreinte digital ba mu koy tudd ba ñëpp tey di nangu ne test ADN am na kon dëgg yàlla subhanahu bala taala ba muy wax ne empreinte digitale di ko tudd ci alxuraan booba science egseegul foofule waaye tey science ñëw na ba dëggal alxuraan waaye alxuraan du moom mooy dab science waaye science day ñëw ne ah ndeke li alxuraan waxoon ndekete yii la suñu xel mu ngi ciy door a egg tey ci vingt et unième siècle ah nangu nañ lii nangu nañ lii. waaw kon nag yàlla subhaanahu wa taala di ñu xamal boppam bés boobu nga gëm ko mooy bés pénc ne ah bés boobu day bés buy am la nga xamne sirat moy pont la bo xamne dang koy jéggi wara traverser dem aljana bu fekke sa jëf baxna da ngay gaaw ji sax ñu wax ne dañ lay yéegal ci laafu malaka da fay melni xefax xippi waye nga xamne sirat amna sirat amna nga xamne safara nga gëm ne am aljana nga gëm ne am na fa jëf yi nga gëm ne am kon nag yàlla subhanahu wa taala nonu la mel nga xamantene foy dem ci aéroport yi ci port yi fep da ngay ñëw ñu xol sa bagage yi pesé ko tant de kilo lañ la may nangam nga wara yor buñ fekke lo xamne ëpp na sa bagage yi dafa am accès su ko defee ñu dindi loolale bu fekkee am na loo ci def lu ñuy tere ñu dindi loolale mu ne ëllëgit danañu pesé jëfi doom aadama fa amma man thaqulat mawazin فهو في إنشة رادية يالا إن شاء الله بولا بولا لنشي ينيب واي غام نيسين جف جو باخ أب ألك تحينا نيو ألك نغم لولو ندينا أم nga xam ne gëmit ne ka xawdu mooy alkawsar lu am la yàlla ne na mu waxee ci booy jéggi siraat ne wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya nga xam ne loolu foog mu am yooyu yëpp da nga koy gëm boo ne gëm naa bés penc loolu nga gëm nag lan gëm gi lan la mooy na nga waajal yooyu mooy na nga ko waajal ci jëf yooyu yëpp nga xamante ne da nga fa dem da nga dekki danañ peser sa jëf dana nga jéggi siraat danga danga danga danañ la joxaat sa téere ne la jàng ko lépp ba nga mu ba fa ngay sa majeur fa mu yem ci xel wala fa nga génne addina ñu ne la sa filmaa ngi nii jàngal sa bopp am yaa moom lii su ko defee nag fa fa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflixuun waaye nag wa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira loolu mooy ñu baax ñi ba tey sofaan ba nag taxaw fële wa amma man utiya kitaabahu waraya zahrihi yal nañ ci yàlla musal musal leen ci kon nag yooyu nga gëm ko ci waajal ko ci jëf-jëf ju baax ëllëg nga xamante ne loolu ci ngëm yàlla boo jógee foofu nga nangu dogal al imaanu bil qadaai aw bil qadari dogal bu neex ba bu naqari waaw nga gëm yooyu yëpp su ko defee nag nga nga waajal sa bopp ci yooyu loolu daal euh, ci ci ci lan mooy ngëm yàlla nga xam ko bu baax kon ngëm yàlla juróom benn ponk la gëm yàlla gëm yeneen tey gëm téere yi gëm bés pénc ne dina am gëm ne danañ pese jëf yi gëm dogal bu neex bu naxari yooyu nga gëm leen xam leen ne lii mooy ponk ngëm gëm-gëm boobu nag boo ko gëmee ñu ne ah yow day gëm nga kon lislaam ñëw lislaam ni jibril waxe woon yonente bi nekk ahbir ahbir nii an il islaam ahbir nii an islaam lan mooy lislaam te gis nga jibril lu mu laaj yenente bi yenente bi wax mu ne ko dëgg la wala wax nga dëgg bokk gaa yi yéemu saxaaba yi waaw moom mu ngi lay laaj na laan dëgg la kii waa mais mais waa ji moom jaaxal nañu de yenente bi xam na li mu xam waaw xam na li mu xam ñu toog ba jotaay jeex ba jibril dem mu ne leen ndax xam ngeen waa ji doon laaj gaa yi ne ah waa ji de xamuñu ko kii daal xamuñu ko ah xamuñ mu ne leen xamu leen ko déedéet kii jibril la moo ñëwoon toog di leen jàngal seen mbiri diini jibril gars yi gestu xool fekk dem na bu yàgg kon dëkk jibril mooy ñëw di wax yonente bi ndax la mu la mu la ko suñu borom waxoon maîtriser na ko waaye tamit comme mooy jàngalekat bu mag bi kon kuy jàngale war nañ la tàggat bu baax yooyu aussi bu ñu ci duggoon ci wàllu éducation rek mën nañ ci wax yu bari incha allah danañ am occasion ci wàllu éducation wax la ne la gis nga lislaam daanaka bàyyiwul dara te sujet yu bari boo ko jëlee rek l'islam mën na la ko traité amul benn sujet booy jël te l'islam du ko traité moom kay li fa nekk mooy nga wax ci domaine bi ci wàllu médecine imam Seba ne ah loolu de mënuma ci dara nañ seet kenn koo xamante ne dafa spécialisé en médecine mu ñëw wax ci loolu kaneen ci wàllu environnement kaneen ci wàllu biologie kaneen ci wàll kaneen kaneen kaneen yooyu yëpp su ko defee ku si nekk indi xam mooy وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أحد وفوق كل ذي علم عليم ku ne xam nga lu sa morom xamul kon yooyu mooy alxuraan lépp ngi ci su ko defee jibril jàngalekat bi am na nu mu war a mel kay jàngale am na nu mu war si formation wala yu ni mel incha allah yooyu amaana dinañ ci ñëw bés si xam sa diine pour ñu xam rek lislaam lu ci ne fan nga ko war a teg kon mbokk yi déglu Safin FM 98 point 2 darsa tay bi mooy nag ginnaaw bu ñu résumé ay imaan ngëm yàlla ñu ne bon lan mooy lislaam lan mooy ponki lislaam bul fàtte de ponki ngëm yàlla juróom benn la takk ko bu baax siis la waxoon naa la ko léegi kon nag ma ñëw ci lan mooy lislaam ak ay ponkam bu ñu waxee lislaam mbokk yi mooy wommatu waaw mu wommatu loolu dafay laaj ci jëf ci ci cër yi bu dee ci charia nag mooy nga ommatu nangu li seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam andi ci diine mu jóge ci borom bi subhaanahu wa taala moom lislaam boobule dafa am ay ponk ay kenu kenu bu la neex nga dafa am ay pilier mooy pied juróomi pied yooyu cëslaay yooyu mu am moom lislaam nga xam ne ñoo ko téye ngëm yàlla juróom benn la duñu deñ di ko fàttale parce que ñoo ànd lislaam juróomam yooyu ko téye nga xamante ne bu ci teguwul du dem mu ngi mel ne yi ngay gis yëpp ci biir lislaam dafa am fondation tey bu fekkonte ne da nga bëgg tabax dara foog fondation bi dafay dëgër même mbaar boo koy defar di nga am ay kenu mu nga dépendre ci dimension bi nga jël léeg-léeg mu laaj ñeenti kenu léeg-léeg ñett léeg-léeg juróom léeg-léeg juróom benn selon euh, euh, taille bi nga bëgg l'islam nonu la mel yàlla nak ne l'islam dal liko wara yenu juromi kenu lo jurom yi nak mom bo ñe bëgg tabax dara ci kawam te juróom yi matul day daanu kon jurom yoyu moy l'islam jurom yoyu mbokk yi bi ci moy ash-shahadatani ñaari baatu cede yi ash-shahadatani ñaaru baatu cede yi moy lan moy ashhadu an la ilaha illa allah وأن محمد رسول الله لول موي الشهادة تاني نيارو باتو سيدي موي دنغي ننغو كنوك يالا نعم ممرك في أم أمو نيار أمو نيات بوبو جيت الإسلام تحاو تا يالا ننغو أكن نم دوي دوانا نياتالا le père le, le fils et le saint esprit dedet yalla kenn la subhanahu wa ta'ala amul ñaar amul ñet amul kumuy nurul ci dara amul associé dedet moom amul ay action yu muy jaay ci lislaam kii actionnaire la ci déedéet amul kenn ku ci nekk actionnaire déedéet moom jëfal mu fay la ñëpp ay employé lañ moom mooy le seul unique patron moom borom bi subhanahu wa amul benn actionnaire bu ci am kon amul kuñ koy tënkaaleel kii bu jëloon ay action société bi fayit nangam déedéet l'islam melul noonu kon loolu bu ñëpp maase woon ne ñun à l'unanimité tey kenn du julli tàkkusaan l'islam foofu lay gën a amee doole kon suñuy action yi ñuy yaakaar buñ ko téewoon l'islam du wàññeeku kon nag ñun ay employé lañ nañu góorgóorlu liggéey ndax ñu man ñu fay kon nag l'islam bu jëkk bi ponk bi mooy nga seede na yàlla kenn la nangu seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne moo ko tànn def ko yonente bi ñëpp doon xaar moo ko yenent bi ñëpp doon xaar loolu mooy benn ponk ci lislaam kon booy samp pied yi lislaam boobu mooy njëkk yàlla kenn la Seydina Muhammad yenentaam la moo ko yónni muy benn pied waaw kon bu doon nee maçon bi la semelle bi dafay xóot bu baax moo xam 1 mètre 20 la selon dimension bi volume bi 80 la wala 70 la wala yooyu yëpp su ko defee nga jël sa beton armé defar ba mu baax ciment bi baax yëpp nga kuule poto bi boo paree nga maasaale kon sa première fondement fond euh, première pied taxaw na muy Seydina Muhammad muy yàlla kon ash-shahadataani mu ngi noonu nga boon ngoon na naa wàcc tey ba ma def deuxième poto deuxième poto bi mooy julli iqaamu sola nga kon nag julli na taxaw boobu nag moom la yonente bi wax ne mooy lislaam ku ko taxawal taxawal nga lislaam ku ko bàyyi bàyyi nga lislaam mu mel ni boon ba ngay taxawal sa mbir sa digg kër ga fa la julli taxaw mooy poto bii yenu lépp waaw poto xam nga di nga gis bâtiment dina am poto yoo xamante ne ya ñuy yenu ak yeneen bokkuñu waaw bokkuñu mu ngi mel ni poto bi nekk ci digg bâtiment sëmelam bokkul ak bi nekk ci angle yi waaw loolu mason yi xam nañ ko waaw duñu mason nag waaye euh, doo doomi ouvrier lañ xam nañ bu baax euh, lan mooy semel xam nañ lan mooy dosage xam nañ yooyu yëpp bon kon dëkk yooyu nga fexe ba iqaamu salaa taxaw bu baax su ko defee julli mooy lépp ndax bu baaxee lépp baax su bonee lépp yàqu na kon foofu nga xam ko bu baax moo tax julli moo tax émission bi seen émission xam sa diine li ci ëpp dañ ko accès si julli loolu moo tax Thierno si ay initiative am ay directive am xelaatam mu ne daal julli nañ ko waxtaane lu bari ax lu ci aju ci lab ga ba sa na nga koy pratiquer parce que julli su baaxee lépp bu baax loolu moo tax ñu ne xam sa diine danañ ci ñëwaat kon fexe iqaamu salaa julli doo doo toog ba waxtu wees bu ngànta amul waaw doo toog ba waxtu wees iqaamu salaa nga xam lan mooy julli lan la bëgg lan la beñ julli li ci aju julli nan lañ koy defee lan moo si nekk sunna lan moo ci nekk farata lan mooy fardu ayni yi waaw julli gii nañ laa koy réparé waaw man julli jotee nan laa war a def yooyu yëpp nga xam julli ax yu ci aju كفرض عين لله دروا كأحكام الصلاة نك أتي جلي نخم لب لو تأجو بوجي تي فوفو نخم نموم دفعات لول موم جلي أحيو تأجو nga jàll ci ñetteelu poto bi mooy ita u zaka ita u zaka bàyyil ma mujjeel ka tuuti nga ne saw mu ramadan or weeru koor muy ponk bu ñeenteel waaye ma def ko fii ñetteel juróom juróomi daal moo ci am solo xam ko weer weeru koor bu jotee nga xam ne poto bi da ko war a respecté lan mooy koor koor kan la war ndax am na yéene koor gi bu ma si defee lii baax na wala baaxul yooyu yépp nga xam ko ne ah kon nag bu koor ñëwee war na ma waa bu ma tolloo fii ngàntaam ñu ne la koor gi wàcce na la defel nii wala boog wàcce na la waaye waxtu sàngam na nga ko fay waaw di nuyu bu baax ñëpp ñi nga xamante ne euh, ñu ngi déglu Safin FM 98 point 2 fii ci Scat Urbam ñoom Marème li soppe yi nekk fii Euh, Ndeye Binta Konté di nuyu ñoom Dame Touré fële ci Rufisque Moulay Abdoul Aziz Mbengue ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp waa Yoff soxna Coro Jaxate waay macha allah ma Mademba Samb nekk ci Yoff Mbengue nekk fële ci CM bi ñu ngi koy nuyu boobaa euh, Pape Mamadou Mbaye Kër Massar ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu Aminata Ndiaye Grand Yoff di leen nuyu bu baax di leen jaajëfal di nuyu soppe yëpp waa caserne Malick Sy homme de tenue yooyu di sapeur pompier ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax Aminata Sow Pikine ñu ngi koy nuyu macha allah Ramatoulaye ñaan ñu ngi jot ñaani yóbbante yi di nuyu maam Issa jamono bu ne mu ngi nuyu di ñaan macha allah yal na yàlla defal la tawfiix yal na yàlla doolu sa sutura léeg-léeg mu ne dem naa bay oote waaye ma am lu ma tënk ndey saan ñu nekk ko nañ la fa nga toog del ñaan rek waaw yal na yàlla defal la sutura yal na yàlla sàmmal ah ñu mel ni yow di nuyu ñëpp macha allah. ñoom Marème Ndiaye fale ci caara yi ñaam ngom maris si ñoom ñëpp Ahmed Ibrahima ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax yal na yàlla sàmmalee soxna Adja Kër Massa euh, Kër Massar waaw meer Khoudia Mboup ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waa Grand Médine Amadou Diallo fàttew ñu kenn euh, yal na yàlla defal leen tawfiix maan yee ñëpp rek ñu leen di nuyu famille Babacar jaw ñu ngi leen di nuyu sax na a Diaw HLM ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu yal yàlla sàmm leen su ko defee yéen a ngi seen émission xam sa diine ci 98 point 2 fii ci Scat Urbam su ko defee nga xam loolu bu baax ci lislaam nekkat boobu mooy bu ñetteel bi bu ñeenteel bi bu juróomeel bi ita u zaka xajjul bayti li tax ma jël bii ne na bii jiitu itaa u zaka nit mën na nekk ci lislaam nekk ci nekk ci ba yàlla moom ko ci lislaam te ponk bii du ko war muy zakat nit mën na nekk ci lislaam nekk ci nekk ci nekk ci ba yàlla moom ko ci te ponk aj du ko war parce que am am ba muy laaj kàntan ga muy laaj yooyu ja dajewul ci moom waaw yooyu dajewul ci moom su ko defee kon moo tax ma ne woon ñaar yooyu dama leen di boole mooy ita zakat joxe zakat zakat ki ki ko ki ko war mooy ki ko moom toon jamono bii nag ñiy génne zakat muy fin d'année bi wala début d'année bi ak fu ngeen ko natte rek toujours zakat moom ngay dégg jamono yi ñu koy fàttali doomu aadama yi ñu góorgóorlu ci baax ci ñi ko man waaw ñi ko mënul luñ mën def si sarax parce que zakat naafila mooy sarax noonu la ko fadilati cheikh Thierno daan waxe toujours kon zakat saraxam naafilaam moo mooy sarax kon nag yu demee noonu ñu bàyyi ci xel aj màkk aussi euh, bu fekkee manuloo ko euh, soo manee umra baax na soo mënul umra it nga xam ne wàcce na la su ko defee kon yooyu dafa laaj kàntan dafa laaj alal moo tax lislaam teg ko ci man-man man-manu alal man-manu yaram waaye nag yii jëkk muy ñaari baatu seede yi julli woor du wàcc kenn da nga koy def même ki ko mënatul it dana ko am lu mu ko remplacer si wàllu jaamu yàlla moo xam dafay leel wala julli la soo amee euh, su fekkente ne tukki woon nga soo ñëwee la nga amee woon nga fay ko su fekkee nekk nga foo xam ne ngantaa taxoon bu ngante dañee nga fay ko waaye ñaar yii nag moom am am lay laaj su waxtu wa jotee amuloo ko kon wàcc na la kon juróom yi mbokk yi mooy ponk lislaam doom aadama bi war na ko bàyyi xel fu mu toll xamne l'islam daram tutul dom adama bi warna ci gor gorlu bu bax xam dinem ni ko l'islam andile mu diko top bu bax beñ ko négliger aussi wa mu beñ ko négliger xamne l'islam moy lépp kon dom adama bi day xamne l'islam yàlla daf ko tek ci ay textes yu wir bu mu ko tek ci xelatam ah yaakaar naa yaakaar naa déedéet kon loolu doomu aadama bi daf koy xam bu baax kon bu ñu ñëwee ci loolu pour xamal la ponk lislaam yooyu boo fa jógee buñ ne ash-shahaadataani nga xam ne mooy ñaari baatu seede yi ni ma la waxe woon xadiisu jibril mu ñëw di fàttali mooy baat bi ngay seede ne kenn amul kudul yàlla léegi ponk lislaam yi nag juróom yooyu laa lay bëgg a tuuti kenn amul kudul yàlla te it yaa ngi seede na ne sayyiduna muhammad ndawam la moo ko yónni nga jàppane baat boobule di ñaari kàddu ñu koy tudde ash-shahaadataani jàppane ñaari kàddu yooyu ñu koy tudde ash-shahaadataani تعتبر هذه العبارة المرحلة الرئيسي للإسلام آه، مولاي دوغل تبير الإسلام بوكو واحد رك يعني تبير كون أساسياسيون لا ولا ONG لا ولا لومو مانا دون كوم أساسياسيون مو في غنى سيو أساسياسيون غنى أك ماس لا ماس جي pour nga bokku ci da ngay ñew nga am carte de pour nga bokku ci da ngay joxe sa nat l'islam nak بوحي الشهادتان مي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جهنا إلى سكرت دمامر لكن نجا ورخم رجل ما انتريير استتبي لن لوح رجل ما يلن لوح pour nga mën a saxal sa bopp ci biir association boobu la boo ci génnee sa bopp rek yaa ci génne sa bopp loolu mooy l'islam kon nga xam ne baat boobu boo ko waxee rek yaa ngi ci biir association bi mooy yàlla moom rekk la amul kenn kuñ koy booleel jaamu gi nga koy jaamu danga koy sellal ashhadu maa ngi seede di saxal di dàqane an laa ilaha illa du kenn ku ñuy jaamu muy wér du kenn ku ñuy jaamu mu ñuy jariñ du kenn ku ñuy ñàkk jaamu mu man ñoo lor illa du ken koy jaamu am ca tiaftal jaamu kudul ci yàlla niki noonu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne mooy bunt bi ngay jaar ngir egg ci yàlla loolu nga xam ko bu baax mu tax ashhadu dafa for lool nga nangu loolu xam loolu moo tax biraan mu ngi lay xamal ne waxtu wi ñuy nodde jot na pour que 我的。 sallallahu alayhi wa sallam kon nag mbokk yi déglu Safina FM 98 point 2 yéen a ngi seen émission xam sa diine ñu ko baaxoo aljuma bu ne rek euh, di leen jaajëfal ci déglu bi di am kontaante lool ci ñaan yi mun na mbokk yi jaar ci suuf di wane seen mbégte ci rajo bi di wane seen mbégte ci émission bi yal leen yàlla defal tawfiix euh, di nuyu bu baax soppe yi Abdoulaye Sarr Ginte Yof Ndangaay di nuyu Pape Assane Gueye di nuyu Imaam Saleh waa xadra yëpp soxna Binta Ndoye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di massawu mbokk yi foofu ci dëj bi euh, Adja Koña ñu koy gën ko xam ci ëppa yal na yàlla xare ko aljana yal na yàlla def fa mu jëm dina flaayam koy massawu njaboot gi ñëpp incha allah euh, di nuyu ñëpp macha allah waaye di. nuyu ñaanal ñi nga xamante ne mooy waa association jàppoo liggéey nga xamante ne eh, ñëpp fay daje ci ay kilifa eh, di leen nuyu ñoom ñëpp di ko tàmbalee ci mag ñi ay ku leen jium ñoom doyen Seya ña fay jaar di nuyu ña fay faral di toog ñoom Ismaïla ñoom Yuga ñoom Baye Ndaw Bakare ñoom ñëpp rek macha allah ñi nga xam ne jamono bu ne ñu nga fa di wéttal ndaw ñi loolu yàgg na ci. béréb yu ni mel yàlla fay leen ñoom Tamsir comme Tafa mu ngi naan imaam Tamsir a ngi comme nag comme ah, imaam bii ñëw xaj na moom la ñuy invité incha allah kon nag imaam Tamsir na préparé bu soobee yàlla ñoom Maguette Samb fàtte ñu leen caam ñoom ñëpp rek ñaan yàlla yàlla defal tawfiix ñu fay nekk ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu di am kontante lool ci teewlu bi ngeen di teewlu. ñaan yàlla yal na yàlla dolli sutura bu baax a baax a baax incha allah di nuyu mbokk yëpp su ko defee rek.

muy juróom yi nga xamante ne doomu aadama bi war na ko war na ko xam bu baax a baax man ko teewlu teewlu gi mooy nga man ko jëfe ndax wax naa la ne iqaamu sola mooy taxawi julli shahaadataani romb nga ko seede ne yàlla kenn la moo yónni yonentaam seydina muhammad bu loolu sax nag nga xam rek moom moo fi ne amul leneen te boo bëggee am ngërëmul yàlla rek jaaral ci yonent bi te yonent bi nag moo ñu xamal julli ah ya say aju yëpp kon yonent bi moo la koy xamal moo tax suñu borom di wax ci alquran ne qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uni yuxbibkum allah wa yaxfir lakum zunubakum su ngeen bëggee yàlla rek toppaleen ma man yonent bi gëm leen ma man yonent bi kon manoo ne gëm naa alquran te gëmuloo sunna sayyidina muhammad manoon a gëm naa yàlla te gëmuloo yonente bi loolu moo tax ashahadataani ñëw nekk ñaari baat waaye di benn boo prononcé benn bi ashhadu an laa ilaha illallah te bi ci des sa lislaam adhésion bi matul kon ndëkk loolu mooy ashahadataani bu loolu matee nag adhéré nga yaa ngi ci biir association bi tey bu doon ne jàppoo liggéey lañu ne ah ñëw nga adhéré nga jox nañ la sa carte membre li ci des nag mooy respecter sa engagement ci cotisation la ci nangam la ci nangam wàccoo ak charte yi bu yooyu mooy iqaamu solaati boobu nag mu am doole lool iqaamu sola mooy ponk bu ñaareel bi ci ponk lislaam mbokk yi yàlla daf ko indi waral ko ci bépp jullit baalirin aqilin nga nekk mukallaf di ku am xel waaw muy juróomi julli nag ci bés bi juróomi julli ci bés bi buñ ne bés bi mooy vingt quatre yi guddi la yi bëccëg la mu war ci yow yooyu mooy fajar tisbaar takkusaan timis geewe fajar mooy suba tisbaar takkusaan timis geewe juróom yooyu juróom yooyu bu matee nga di ko def ni mu ware yi ci des danga ko def de dinañ la ko wax waaye nga ne du ma ko def association bi kenn du la ci génne parce que yaa ngi respecté engagement yi waaye yasa yi des ndëkk lu mel ni naafile yi du ay engagement waaye yaa ngi koy def ci biir association mooy activité ya fay xew yenn yi nga xam ne boo ko deful kenn du la sanctionné nga di ko def dana tax ëllëg nga mën a am promotion bu gaaw ci association bi ëllëg ñu ne ah soxla nañ secrétaire soxla nañ président soxla nañ vice président soxla nañ nàngam ñu ne ah diw dey ku farlu la ku am yitte la kii day buñ ko dénkee lii dana dox yàlla noonu lay def ci nawaafil yi ci lay yëkkatee ay jaamam si naafila yi ci lay yëkkatee ay jaamam waaye kat ñàkk ko ko def du tere yaa ngi ci biir association bi yooyu da ko war a matal xam ndax sunna yi lu mel ni witr lu mel ni yoor-yoor taxaw ju guddi waaw lu mel ni laab ki nga xam ne julli moom lay laaj boo laa julli laab ga ca aju yëpp loolu moo taxoon ma ne la xam sa diine yooyu yëpp daf koy traité pour nga xam julli boobule julli googu googule nan lay wére boo noppee ci loolu nag nga jublu ci yàlla subhaanahu wa taala ci nan bi xushuin dëkk wa xuduin ci toroxlu ci ragal xam na yàlla rek moom moo fi ne boo koy defit nga def ko bi tazallul si toroxlu wàccee sa bopp ci kan ngay toroxlu bayna yadayillahi subhaanahu wa taala nga xamne bokay def yàlla mu ngi taxaw fofu nak ngay dugge ci al ihsan muy ponk bu ñettel bi ci diine inshallah da nañ ci ñëw ta dila xamal ne julli gogule yàlla neene dafa am waxtu inna alsolata kaanat ala almuminina kitaaban mawquuta mu ne julli dafa am waxtu du ne da ngay jóg rek boole yépp déedéet du waxtu wo julle baxna li ci am solo moy l'islam nee ci bés bi dedet kan mo lay xamal inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta koku moy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam si sunnaam ngay dem nga dem bo demé ci xadiisu jibril wala ñu tudde ko imaamatu jibril fa mu ñëwee woon di jàngal yonent bi waxtu yi bo fa démé di nga xam waxtu julli kañala waaye du jamono bu mu la neexee nga def ko te loolu kon si sunna nga koy fekk sunna si yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon yéen a ngi seen émission xam sa diine ci 88 628 10 95 mooy góomu jokkoo gi ku fëgg rek biran dina la ubbil incha allah kon yooyu nga xam ne julli dafa am waxtu waaye nag yàlla di ñu leeral ci julli gi ne ah ku ko bàyyikat am na ndaan buy tegu si sa kaw comme ni ma waxee dafa am mbootaay la di association nga dugg ci sa natt ñëwul lañ nga war loo bër kuréel gi def loo ko bu boobaa dana am ndaan yu tegul sa kaw kon ki bay julli ci tayeef ci wet na julli amul kooku dafay génnaat ci association kooku dafay génn génnaat ci association mooy dañ lay génn ci lislaam parce que bàyyi nga julli ci tayeef teg ci sax ne julli amul waaw kon nag yooyu daf lay génne foofu te nag wal iyaazu billahi yal nañ ci yàlla musal munibiina ilayhi wattaquuhu wa aqimu lsolaa wala takunuu min almushrikin la yàlla wax waaw kon nag toppale ah, asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Imam Mbaye wa barakaatu oustaz Balde ñu ngi lay ziar imam ñu ngi lay delloo fadilatul oustaz ما شاء الله جبت كذلك اللهم امين استاذ يانغل مام سلام نغا خامنا يانغي خوي ديفال جيرجيف جيرجيف ديكو ديفال جيلي نان بولم ساتيات جيرجيف استاذ جيرجيف سيني فاتي تم دي جيرل ان مي راكو ديا سيني امام امام تيرنا حامد ما شاء الله امام تيرنا حامد بان ديكو نام يالا مام فنال ما يالا يوخو جامم مونغي لاي ديغ yàlla yokk ak yërëm te yokk ay jéebam amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi tafal ko ci ndam moom ak boolema ak na yëpp amiin yaa rabbi naka noonu itam dañu nuyoo nuyoo mboolem ustaas yi soo nekk di yëngu mm, allah ñaan yàlla ñoo ne tam yàlla na yàlla guddal seen taxawaay amiin Balde amiin waaye ah imaam di la yëgal na nag tey dañu ko waxtaan waat lool ci waxtaan bi macha allah yàlla na yàlla kontaan ndax ni nga ko tookee ci diggante tànk listaan yi mhm, mhm, mhm. Eh, jullit lu mu gàtt gàtt xam-xam bu ko dégloo dama ci mën a jàngee lu bari ci wàllu islaamam waaw surtout ni nga ko tàmbalee ci wàllu saada saani yi nga xam ne daanaka boo xoolee foofu la boo xasee ba jege daanaka li ci def si day jag wallaay dëgg la wallaay dëgg la waaw ndax tànk ci waxtaan yaa ngi wax ne julli daañ ci gën a insister ndax moom la yonent bi waxoon ne wallahi wallahi dëgg la bu baaxee lépp nit si baax ëllëg yoon al xiyaam wallahi dëgg la wallahi dëgg la waaye nag bu yàqoo nag léppam daal di yàqu wallahi dëgg la wallahi dëgg la loolu nag mooy dëgg nag comme ni ko xadis waxee wallahi dëgg la wallahi dëgg la waaye nag eh, julli ñi war nañu bàyyi xel ne julli googu bala muy jàkk faw <laughs> nga jiitu julli muy mm-hmm. ñaari ponk yooyu ñaari shahada yooyu mm-hmm, mm-hmm. nga xam ne ñoo war a def ci nit si pas-pas def ci moom ngëm yàlla bu sell wallahi dëgg la def ci moom ak dëgg yéen ci yàlla Muhammad bi dëgg sallallahu alayhi wa sallam yooyu shahadataane yi nga ko waral nañu ci xol ba waaye nag bu fekkee ni ko nit ki fasoo baaxul rek su boobaa julli du mën a baax ji dese du mën a baax wallaay dëgg la Oustaz te foofu léegi dañ ko xaw a sàggane moo tax shahada kaamil yi lu mag di jàngat la bu baax a baax wallaay dëgg la wallaay dëgg la ndax foofu mooy fondation bi mooy fondement bi macha allah jërëjëf bu jaaxul rek la ko def lu mën a jot jërëjëf waay jërëjëf waaw ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla nañ ci yàlla dimbale jërëjëf jërëjëf ba ñun ñëpp buñ ko saxalee mu doon loo xam ne woon suñu biir xol jërëjëf oustaz doon loo xam ne itam lu ñuy mën a tuural lay tax suñu jaamu yàlla mën a baax macha allah jërëjëf di la ñaanal na ñu itam yàlla yàggal sa taxawaay ci lislaam lool te guddee saw fan ñu nit kazalik wax dëgg yàlla ñëpp ñu ngi lay bëggee jërëjëf jërëjëf waaw da yëmbal soppe yi wax euh, soppe yëmbali yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom yëpp maa ngi leen di nuyu waaye oustaz ah coupé nga yang yang yaa ya may dégg xam naa di ma ding ma ding ma kiiwaat eh, fani dama la doon noppal ndax yaram weex yu ni mel nag fi dugg nag julli nag eh, nga ñëw man namm ma la auditeur auditrice si nañ la ah. kon oustaz balde inshallah. Bo boo rek ñu ñu joko comme niñ daan def comme <laughs> ya yaay yaay sama comme ni ko ceerno di wax ko am ku dudd <laughs> na def tawfiix allo salaamaaleykum. imam Seyba. ah El Hadj Doudou maa ngi ziar Seck. waaw maaleykum. Seck Seck Seck. waay ñu ngi ziar bu baax. tubaarkalla macha allah. naka waa Liberté. ñu ngi ci jàmm di ma sant yàlla Seck. aywa sant la gërëm rek. jërëjëf. ndax li nga def am na solo. jërëjëf Seck. julit. Mhm. nga di ko yëgal wax ko lan mooy mooy ngëm. Mhm, mhm. waxoon nga ko ci semaine bële paase ñu répété waat ko. macha allah. loolu am na solo. Mhm, mu wax nit ñëw ci l'islam. Mhm. wax ko répété waat ko. li mhm, ñuy wax ñuy wax wax ci boobu rek répétition et mais c'est extrêmement important. macha allah Seck yal na ñu yàlla fayal. amiin Seck parce que julli amul loolu. wallaay dëgg la Seck kon rajo beeg. jërëjëf wax ak yëpp yal na yàlla taxaw. sàmm leen jërëjëf Seck amiin Seck. sàmm ki nga xam ne moo sa rajo bi. amiin Thierno Hamidou macha allah yàlla dimbale ko muy damay kàttan wér. wallaay Seck dimbale directrice sam boobu moom tamit. soxna ñu ma ba wallaay dëgg la yéen a yeggal ay yéeneen. amiin Seck mbaa yal na yàlla fay. jërëjëf Seck ñëpp kontaan ñu wax. wallaay Seck Seck Seck jaare sama waa kër yi ndongali gay ndongali gay El Hadj Malick Sadji macha allah jërëjëf gërëm sa ñaanal sa Salih wallaay dëgg la ak sama góor ñi nag ñoom la warga la dëgg la fa warga wan eh, ngaala jërëjëf waaw waaw jërëjëf jërëjëf bàyyi naa la jaa macha allah jërëjëf jërëjëf ñu ñu waa Liberté yëpp incha allah salaam. macha allah kooku mooy El Hadj Doudou Seck macha allah moom it di bokk ci mag ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak rajo bi ci 88 628 10 95 mooy gu mu jokkoo ku fëgg rek biraan dana la dugal incha allah su ko defee kon nga xam lan mooy lislaam kon nag oustaz Balde incha allah dégg nga dégg message bi jërëjëf kon nag su ko defee nga xam ko bu baax xam julli mooy lan. moo tax yi ci aju yëpp émission bi xam sa diine li ci ëpp muy waxtaane julli ak yi ci aju kon dañ ko war a xam dañ ko war a fonk bu baax moom julli ndax bu baaxee rek lépp baax moom julli waaye su yàqoo rek lépp yàqu kon dëkk même ña yàlla nattoo ba ñu dem safaral ba ñu leen laajee lu leen fi dugal qaalu lam ko min al musallin ah ñun daal dañu négligé woon julli kon nag lii sa woon de moo ñu fi dugal kon nag ñooñu am na luñ ñu wan kon ñun buñ nañu fexe ba bañu bokk ci ñoom kon nag góorgóorlu ci loolu bu ñetteel bi mooy ita u zaka niñ la ko waxee zakat muy ponk bu ñetteel ci lislaam zakat mooy yokkute zakat mooy laabal zakat mooy sellal baat yooyu yëpp lay firi day yokk li nga yoroon day sellal li nga yoroon day laabal li nga yoroon ndax li ci am ci ay jeexital di dellu ci nit ki di dellu ci mujtamaa bi muy société bi ngay dundi kon nag zakat mooy nga génne xaaj ci alal ji la yàlla dénk mu mat nisaab bu toogee ba at mat nisaab nga génn ci zakat nga génn ci zakat nisaab ba da ngay dellu ci nattuwaay ba ci gramme or quatre or la nga am boo ko xaymaa bu matee loolu nga xam ne ah, zakat taxaw na nga génne ko allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waa kay sëñ Yoro Ndiaye. Ndiaye Ndiaye Ndiaye. ñu ngi ziar bu baax a baax. ñu ngi nuyu waa Scat Urbam ñëpp. macha allah macha allah. jërëjëf jërëjëf. mais temps yi moom dama xawoon. waaw da nga xawoon ñàkk a jot tuuti. waaw waaw temps yi moom du xool moo tax mais sama xel yëpp a ngi. wallaay wallaay Ndiaye da ngay nekk ci tali bi di daw. émission baa ngi daw doo am. waaw doo am jot waaw boo nee ci circulation moom doo mën a oote waaw. wallaay dëgg la wallaay yow dëgg la. amiin yàlla jërëjëf Ndiaye jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ah kontaan nañ ci yéen yàlla kontaan jërëjëf Ndiaye jërëjëf yàlla dolli xam-xam bi allahumma amiin vraiment ñoo ngi jàngal de jërëjëf Ndiaye a baax jërëjëf Ndiaye man de li ma xamoon boobu yokku na yokku na ah incha allah yokkute eh? sant <laughs> <laughs> allah maa ngi nuyu Sow mu ngi lay dégg wallaay ñoom ñëpp a ngi lay dégg ñoom ñëpp a ngi lay dégg ñoom ñëpp a ngi lay dégg macha allah waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf baax na incha allah Ndiaye macha allah kooku mooy El Hadji Yoro Ndiaye mu dugalaaleel waa Scat Urbam ñëpp ci 88 628 10 95 su ko defee nga xam lan mooy lisla allo salaamaaleykum imam Cheyba ah Pa Warga wan na ma naa la wan wan wan wan ñu ma jiitu fay leen wan Eh, ma ne. xam nga diine. waaw. mbubb la. mbubb la walaay. booy sol jeex na. <laughs> est-ce que est wan walaay dëgg la. diine. kenn waru ko sàggan. kenn waru ko sàggane. kenn waru ko saag eh, caaxaane. caaxaane déedéet. mooy adduna ak laaxira. walaay dëgg la wan. ku la xamal diine. Mhm. santal yàlla nga sant ko. est-ce que est-ce nag. maa ngi koy fëddale suma collègue suma diggante ak moom. walaay mu ngi koy nangu bu baax. imaam ku baax la. ku baax la wallaay ku baax la. imaam. koy luy wuti feneen. Mhm. boo gisee ci imaamu téye ko. wallaay macha allah. parce que mbubb. booy natt ci ëkk. borom mu ngi toog borom mu ngi toog. <laughs> fu ngay war a natt. wallaay déedéet wallaay wallaay wan. imaamu nag. war wan. lu guddi. Mhm. bëccëg. Mhm. lu lindim. ak lu feeñ. yëpp imaamu doy na ma. macha allah. yàlla na ko yàlla defal sutura nag allahumma amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi parce que seer bi xoolal fi nga nekk ni wallaay dëgg la ñëpp ñoo daje fi wallaay dëgg la wan amul séeréer amul tukulóor amul wolof wallaay wan dëgg la dëgg la kon jiyaat du passé li mhm, mhm. yi muy boole nag mhm. du tabe xam nga tabe moom jàng ngeen ci lislaam wax na ko fii see ku tabi ci jaamu yàlla. wallaay dëgg la moom dafa tabi. wallaay dafa tabi wallaay dafa dafa dafa xolam dafa leer. wallaay dëgg la wallaay wan. xol bii leer na. wallaay wallaay kanam bii leer na. jërëjëf jërëjëf lépp ci moom manquewul. wallaay dëgg la wan. ñu ngi koy ñaanal yàlla nag. amiin wan amiin lu mu yéen dafa diis ne de alxuraan. amiin wan wallaay dëgg la yal na wan amiin wan ci wan wallaay wan yal nañu yàlla defal jàmm maa ngi nuyu nag eh, ma ma mu ngi lay dégg mu ñu ngi lay dégg lépp luñ rabbi loolu rek lañ ñaan yàlla jërëjëf wan jërëjëf parce la wallaay jërëjëf wan lamin bu sax macha allah wan kooku mooy Warga wan di mag ñi àndax ñun ci rajo bi di ñu gunge jamono bu ne ak seen ñaan yal na yàlla ñu leen euh, allo salaamaaleykum wa barakaatuhu El Hadj Malick ñu ngi lay ziar bu baax El Hadj jërëjëf El Hadj Malick jërëjëf jërëjëf allahuma amin allahuma amin wallaay jërëjëf wallaay jërëjëf wallaay ndongali macha allah wallaay dëgg la wallaay dëgg la. incha allahu rabbi. waa bu sooba yàlla ñu ngi ci ñu ngi ci. alhamdulilah alhamdulilah. amin yaa rabbi amin amin. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf ñu ngeen nuyul ñu soppe yëpp incha allah. jërëjëf kooku mooy El Hadji Malick euh, Wala Métal moom it ñoom ñu yor kàddu soppe yi di oote jamono bu ne ci 88 628 10 95 su ko defee ku fëgg rek Birane dana la dugal incha allahu rabbi am na mbokk yi nekk ci bëgg di oote waaye léeg-léeg comme ni ko El Hadji Yoro waxee mu fekk leen ci ay yitte wala yi ni mel waaye xam nañu yéen a ngi àndax ñun ci seen émission jamono bu ne yéen a ngi gunge rajo bi yan na leen yàlla fay kon nag zakat nga génne ko bu jotee. boko mané rek nga génne ko jox ko ñi yàlla wax na nañu leen ko jox nga taxaw ci bu baax def ci lo ci man allo salamu alaykum alaykum assalam ah so ñi ngi ziar bu baax so so so allahumma amin so ñu ngi ziar góor ak jigéen mag ak ndaw. ñëpp nga ngi la koy delloo Sow. bàyyiwuma kenn. wallaay Sow dëgg la Sow. bàyyiwuma waa Liberté bàyyiwuma la Sow. bàyyiwuma kenn wallaay saw dëgg la dëgg la wallaay saw dëgg la di a ngi la koy delloo yal amin sow amin sow amin sow kon a ngi la koy delloo sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf a ngi la koy delloo jërëjëf macha allah sow sow bàyyi wuñu waa Yoof waa ñëpp a ngi lay déglu jërëjëf maam ñoom jërëjëf Pape Mor Baye yooyu fa nekk yëpp incha waa Scat Urbam macha allah wallaay gi wan <laughs> <laughs> est-ce que est-ce que اللهم امين يا ربي اللهم امين يا ربي امين يا رب العالمين امين امين امين امين امين سو امين سو امين سو نيت ان شاء الله سو الله يسو والله جرجف والله يسو يلا يلا الله يسو جرجف امين سو امين سو صلى الله عليه وسلم نيل ما سكرتير maire bi maa ngi koy nuyu allah. dina ko dégg mu ngi di la dégg. dëgg la jërëjëf jërëjëf saw yal na jërëjëf Sow jërëjëf Sow jërëjëf jërëjëf Sow Seydina macha allah jërëjëf saw kooku mooy góor gi Amadou Sow muy tuddee rajo bi rajo yokkute eh, mooy daanaka ñi fi oote ñi ci xamagul ñëpp wala di déglu même moo ci mag daanaka waaye atam fi mu toll wax dëgg yàlla boo déggee kàddu gi nga ne ah kii day eggul foofu waaye boo ko gisoon rek euh, sa yaram dafay daw macha allah ay mag yu bëgg a diine euh, di accompagner rajo bi di àndax ñun wax dëgg yàlla bàyyi seen lépp di taataan di la ñaanal di woote di ci teg wax dëgg yàlla ñun daal amuñu luñ leen di waxal lu dul rek fa jazakumullahu xayra yal na leen yàlla fayal ngeen yàgg fi lool di ñu gunge yéen mag ni macha allah ci 88 628 10 95 donc defe naa waxtu mu ngi dem su ko defee rek euh, waxtu julli xam naa ne buñ ko buñ ko joxewul it comme nañuy waxee rek euh, moom góor gi defe naa ne ah, bu boobaa rek euh, mu ngi noonu su ko defee résumé la bindu tay bi ci lislaam juróomi ponk la ñaari baatu seede yi muy gëm yàlla gëm yonentaam gëm yàlla gëm yonentam muy benn bu ñaareel bi julli ak yi ci aju yépp nga xam ko xam lan mooy julli bu ñetteel bi mooy joxe zakat bu ñeenteel bi woor weeru koor bu juróomeel bi aj baytullahi alxaraam juróom yooyu mooy juróomi ponk lislaam bu ci ne ax la ca aju yëpp nga xam ko ba sa gën yaatu mbir nag bu baaxee lépp baax ci juróom yooyu mooy julli ginnaaw boo waxee baatu seede yi ba dugg rek julli moom dafa war a baax su baaxul rek dara dootul baax kon nag julli moomu incha allah euh, danañ ci ñëwaat bu ñu jeexalee bunt bi ndax al ihsaan moo ñu desee lan mooy rafetal ci lan mooy lislaam kon dañ ne woon ci njalbeenu at mi ñu delluwaat fàttali suñu bopp lan mooy gëm yàlla lan mooy lislaam bi ci des nag ci diine mooy bu ñetteel bi nag moo koy couleur moo koy matal ndax bu ci amul rek lislaam dafay dafay xaw a ñagas kon de kooku mooy al islaam mooy al ihsaan incha allah bunt bi di ñëw moom la ñuy jël su ko defee comme niñ daan def rek

fajar gi mu ngi ci 5 heures 47 salaatu 5 heures 47 rek da dégg salaatu jot na 6 heures ñu taxawal julli 5 heures 47 salaatu xayrun mina naw mi kon ndëkk sama classe gi lu ñu nelaw nelaw nelaw bokk waxtu woowu nañu jóg jox yàlla li mu moom nañu jóg jox yàlla li mu moom ndax bés bu jot yaa ngi nooy yi waaye yàlla mënoon na ne kenn du yeewu jóg sa lal lu dul da ma jullil dix mille rakk ku ko deful doo jóg sa lal manoon na ko pourtant lu yomb la pourtant yaa ngi taal sa courant Senelec ma la boo fayul mu coupé la da ngay dem fay yàlla manoon na ko yaa ngi yor sa portable téléphone di def crédit su jeexee ñu coupé yàlla manoon na it boo ko defalul salaatu yooyu mu coupé waaye def la ko may ne la sant ma rek kon nag santal yàlla ci li mu la defal mooy ci jaamu yàlla bu jotee rek nga jóg. kon waxtu yi mu ngi noonu mbokk yi ñu góorgóorlu si tisbaar deux heures et quart ci ñiy ëpp tàkkusaan cinq heures timis gi dix-huit heures cinquante six maanaam sept heures moins quatre sept heures bu desee ñeenti minutes timis jot na geewe gi dix-neuf heures cinquante six wala nga dolli ci tuuti kon nag waxtu fajar gi 5 heures 47 bu jotee rek waxtu yu jot na 6 heures 2 nga dégg acca bismillah ñu julli su ko defee kon waxtu yaa ngi noonu di nuyu bu baax a baax euh, suñu mag suñu lépp Abdoulaye Sarr muy euh, surveillant ñu ngi koy ñaanal wér yaram aussi waxtu yi jamono bu ne moo ñu koy baaxee ak ñeneen moom jamono bu ne bu yónnee ziyaaram toujours waxtu yi moo ñu koy jox kon rek euh, ñu ngi koy nuyu di nuyu suñu ñëpp macha allah fàttewuñu waa Yoof waa Nangañ rawatina ñu ngi leen di nuyu bu baax. baax mbokk yi kon nag si waxukaay bi seen mbokk imaam ba Feggo woon ak Birane Samba si ñu ngi leen di nuyu di leen jox jaa daje ba aljuma bi di ñëw wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.